alhamdulilah walsalatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu boroom tabaraka wa taala boole ko ak jëf-jëf ju baax saxoo ko mbokki jullit yi ñu xam ne bokk na ci yii gàllankoor développement mooy ay melokaan yu bare bare bari yoo xam ne la yuy delloo doomu aadama gannaaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ci xadiisu Buxaari bi nga xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam di muslu mu ne saa boroom yàlla na nga ma musal ci ay njàqare yu sax ak i tiitaange sama boroom yàlla nag ma musal ci ak lot akuk tàyyeel mu ne sama borom yàlla nag ma musal ci ak nëbax mooy ragal ak ak nay mu ne sama borom yàlla nag ma musal ci fees dell ki bor yàlla nag ma musal itam ci ak noteel yii yépp buñ ko seetloo ay melokaan yu dellu gannaaw la yu négatif la ci dundu doomu aadama waaye cosaan la ak fondement ba mooy ñaari melokaan mooy lot ak tàyyeel ñoom ñaar nag dañoo taqaloo ndax seenub safaan mooy cawarte mooy liggéey loolu moo tax liggéey ci boppam mooy cosaanul jëm kanam koom-koom moo xam koom-koomum nit ka ca këram la wala koom-koomu réew ma la wala koom-koomu àdduna la sax loo gis mu jëm kanam ci wàllu koom-koomu àdduna liggéey moo ko andi mu bokk ci yërmaande sunu borom tabaraka wa taala jim yërëm doomu aadama mu di ne bu dee wërsëg moom yàlla moo ko warloo moo wax ne inna allaha huwa razaqu dul quwati almatin yàlla mooy wërsëgal ku am wërsëg te mooy borom kàttan gi te borom boobu tabaraka wa ni mu warloo wërsëg wi dafa dem ba àgg ci nit ki war naa bokk ci yim gëm mu gëm ne wërsëgam faaw mu jot ci kenn mënu ko koo xañ loolu ci jullit bi war a gëmaale la bokk waaye mu gëm ne ci kaw suuf dikku fi rek pour fàggu wërsëgam kese waaye dafa war a góor góorlu ba wërsëgam mu amal ko jot ca waaye mu mën a jariñ ñeneen loolu la jullit bi jeetam ci ab société waaye bu fekkee ne yow li la fi indi mooy looy lekk yow ak looy naan ak fooy dëkk ak looy sol kon sa itte suufe na lool ndax loola moom garanti nañ ko ba noppi am na benn bis jenn waaye joo xam ne dafa tàbbi cib teen al imam ibnul jawzi moo ñu koy nettali waa ji tàbbi ci teen bi waa dëkk bi àndandoo ñëw yooxu yor ab goj génne ko mu génn dara dalu ko xanaa rek xaw a sonn benn waaye daw ca kër ga daal di andim soow jox ko mu naan a naan ba màndi xel mi dalaat ñu ne ko waaw yow loo doon def ba tàbbi ci teen bi mu doon expliquer di leeral rek far tàbbiwaat ci teen bi bi mu tàbbiwaatee ci teen bi ñu génne ko fekk ko mu faatu al imaam ibnul mu ne kooku dese woon na dara ci ay waxtu yoo xam ne faaw war na ko dund door a faatu waaye wërsëgam desoon na ne soow mii da ko war a naan te su deewoon te bu njëkk ba kon du naan soow mi moo tax ñu génne ko mu naan soow mi door a delluwaat faatu ji kon wërsëgu doomu aadama noonu la demee kon jarul ngay jàpp ne tiit wala ngay am njàqare naan sama wërsëg fu may jëlee lu may lekk ak lu may naan ak lu may solo ak fu may dëkk kooku garanti nañ ko waaye nag da ngaa war a liggéey participer nag ci li jëmale kanam nag sam réew ñeneen jariñu ci yow borom bi tabaraka wa taala bokk na ci yërmandeem yooyu mu di liggéey dafa jàpp ndal liggéey ba doomu aadama su góorgóorloo mën a liggéey waaye mu digal ko it nag nekkoon na ko liggéey moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne huwa alladi jaala lakum al arda dalulan moom moo leen tàggatal suuf si ba ngeen mën a dox ci kaw di dem ak ñëw wala ngeen dox ci ak seeni waruwaay su ngeen ci bëggee bay ngeen man cee bay su ngeen ci bëggee samp ay tabax man ko cee samp lu ngeen bëgg a def tàggatal na leen suuf si daal ba mu nekk bérébu liggéeyukaay mu teg ca nag ne famshu kon dem leen nag dox leen fi manaakibiha wa kulu min rizqihi wa na nushur dox leen ci kaw suuf ngeen dem liggéey fàggu wërsëg te xam ne da ngeen di dellusiwaat ci seen borom mooy boo koy fàggu kon nga fàggu ko ci lu lew kon bis bu nekk yaa ngi gis doomu aadama yi kenn ku nekk waaxu jëm ci liggéeyam boo xam ne bokk bokkaliw ko ak moroom ja kenn ku ci ne dana xëy yor loxoy kese buy gont bi ñëw indaale dara ci poosam loolu lépp wër wërsëgu sunu borom tabaraka wa la moo ciy faj aajo ya kon bu fekkoon ne da ngaa seetlu lenn rek ci yi nga xam ne doomu aadama yaa koy liggéey la ciy jariñu kenn xamul nu mu toll miisu mburu wi nga tiim yow di ko ndékkee boo xalaatoon ne ay doomu aadama yu bare bare bare bare seen wërsëg ci loolu la jóge am na koo xam ne liggéeyam mooy jaay jiwu jiwu liñ liggéey mburu mi am koo xam ne jiwu woowee lay jënd dem bay ko su ko bayee bam ñor mu góob ko ñëw jaay ko koo xam ne moo koy dëbb mu nekk ak farine su ko defee ba àggal am ku ñëw jënd ko ci moom koo xam ne grossiste la kooko noppee jaay koo xam ne kuy détaillant kële jaayaat ko keneen ki ñu des door koo defar mu doon mburu mu génne ko mu door a agsi ci place ba ngay ndékkee yow ñooñu mu jaar ñëpp kenn ku nekk jël la sa wërsëg ba ko ndékkee mu xëy ndékkee ko su fekkee bokkoo ci ñooñee doon fàggu mukk nga xam ne keneen jëriñu ci yow waaye da nga bëgg doon kii ndékki ci jamono ju nekk kon yow gi société duutoo bokk ci ñi nga xam ne da nga am da nga am solo kon loolu moo tax liggéey noonu la importance am amee solo te mbokki jullit yi borom bi tabaraka wa taala loolu noonu la ko leerale nee na moom moo bind suuf wa jaala fiha rawasiya moom moo ko wutal ay montagne yoo xam ne ñooy régler suuf si ba ba mel nii mu war a mel wa baaraka fiha nee na moom borom bi tabaraka wa taala moo barkeel suuf si wa qaddara fiha aqwaataha dund yi nga xam ne moom la doomu aadama yi di dunde moo ko séddale dogal ko fenn fu nekk mu teg fa palaasam ci kaw suuf si ka nga xam ne ab dundam daa aju ci lii noona la ko fay fekke këpp dundam aju ci lële noonu la ko fay fekk am na ñoo xam ne seen wërsëg mi ngi ci biir géej yi la ca gën a xóot nga xam ne ay ay gaal la ñuy jël ak ay oxygène ak yu kenn xamul nuur ci biir géej gi door faa mën a génnee la nga xam ne loolu mooy seen wërsëg am ñoo xam ne seen wërsëg a ngi ci diggante asamaan seeg suuf si comme dawalkati avion yaag hôtesse yi liggéey ci biir avion yaag yooya am ñoo xam ne seen wërsëg ngir ñi am ko faaw ñu dugg ci biir suuf di génne ay mbell ay or ak ay weñ yoo xam ne su fekkee génnewuñ ko lu bare bari ci économie bi du jëm kanam am ñoo xam ne seen wërsëg fam ko teg mooy doom aadama day feebar mu door a jot ci wërsëgam feebar yi ci gën a metti ci lay gën a amee wërsëg bu gën a bari ñooña moo xam euh, docteur yi faj cancer yaag feebar yi gën a garaaw seen wërsëg foofu rek la mën a jóge jaaykati garab ya nekk ci pharmacie baag yu mel noonu seen wërsëg ni tey feebar rek seen wërsëg door a mën a jóg nga xam ne kenn ku nekk sa wërsëg ca lañ ko aj am ñoo xam ne seen wërsëg ab sedd bu metti day ñëw ñi door a mën a jot seen wërsëg ndax ña ngay jaay mbàjj ña ngay jaay ak taalu ña ngay daaj mat ña ngay jaay këriñ loo xam ne doomu aadama yi moom la ñuy jëfandikoo ba mën koo fegoo sedd bi am ñoo xam ne tàngooru metti ñooy ñëw ñu jaay seen glace wala ñu defar matériel boo xam ne ventilateur lay nekk wala yu mel noonu door a jot seen wërsëg kon am na ñoo xam ne seen wërsëg borom bi tabaraka wa taala da ko lënkale ak mbégum doomu aadama yi nga xam ne ku bëgg a takk jabar mbégte moomee ya muy jaay mooy yi ñuy jëfandikoo ñoom ngir bége ko am ñoo xam ne ya ñuy jaay dafa lënkaloo ak naqaru doomu aadama mooy gasal kee xabru ba am ca lam cay am kee mooy jaay càngaay la am ca lam cay am kee mooy sang am ca lam cay am yooyu yépp boo ko seetloo ay wërsëg la yoo xam ne dundug doomu aadama gi noonu la ko yàlla tërale kenn ku nekk fa wërsëg bi jóge moo tax borom bi tabaraka wa taala mu wax ne nahnu qasamna baynahum maichatahum nun ci sun bopp man yàlla nee na moom moo séddale seeni wërsëg wa baadahum fawqa baadin darajaat nee na moo leen yëkkati kenn ku nekk daraja ja nga toll borom bi tabaraka wa taala moo la fa teg ci saw wàllu wërsëg moo leen def itam ñu doon ñoo xam ne dañ leen a tàggat ba kii di liggéeyal kee kee di liggéeyal kee kee di liggéeyal kee njariñ door a mën a génn liggéey nag mbokki jullit yi muy nangoo ñaq jëf dafa am place wàccuwaay bu rëy ci lislaam ci kaw nag mu doon liggéey boo xam ne bu dagan la bu sell la loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy tudd ñi génn dem di fàggu ji wërsëg ak ñi génn dem di jihaati fi sabilillah dafa jiital ñi génn dem di fal fàggu ji wërsëg ba noppi doora tudd ñi nga xam ne dañoo génn dem di jihaati fi sabilillah mu ne wa axaruna yadribuuna fi l ard yabtaxuuna min fadlillah ñooñu dañoo génn di dox ci ko suuf si di dem di sàkku ji wërsëgu sunu borom tabaraka wa taala ngëneelam mooy liggéeykat yi door ne nag wa axaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah ak ñeneen ñoo xam ne dañoo génn ngir jihaadi fi sabilillah loolu moo tax al imaam al mu ne yàlla day fii yemale na fi ñi nga xam ne dañoo génn di sàkku ji seen wërsëg ak ñi nga xam ne dañoo génn di jihaad fi sabilillah mu tuddandoo leen ci benn aaya bi mu ne loolu daf lay won ne dalil la buy wane ne sàkku alal ju lew yoo xam ne da ko bëgg a dunde bëgg caa jox ak njabootam bëgg caa def lu rafet jëmale ko ci doomu aadama yi mu ne loolu ak jihaad fi sabilillahi ñooyam lu bare bari nag ci ay aaya alquran ak i xadis ñëw na dina won ne yonent yàlla yi dañoo doonoon ñoo xam ne dañuy liggéey ci seeni loxo dañoo doonoon ñuy ñaq nangoo liggéey ànd ak ne ay yonent lañ moo tax yonent yàlla nuux ci wàllu bant ci la doon liggéey li ñu tudde menuisier yi ab menuisier la woon da doon liggéey ay gaal moo tax borom bi tabaraka wa taala bi nga xamee ne li ñuy wax tuufaan muy ndox mu bari ma war a alal yéefar war naa ñëw te fekk moom moo ko ñaan ndax woote na diir bu yàgg nanguwuñoo tuub moo ñaan ne rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayyaara bul bàyyi bi yéefar ci kaw suuf rey leen ñoom ñëpp fa innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidoo illa fajiran kafaara soo leen fi bàyyee dañu dolli ko ak kéefar te itam njaboot gi ñuy jur sax dañ leen di yàq ñu am njariñ ca la borom bi tabaraka wa taala ne ko nag kon demal defar gaal nag bu mag goo xam ne yaa ñi la gëm ñépp danañ mën a àndandoo dugg ca gaal googee ndax bu ndox mi ñëwee ngeen mën a racc kon nuux alayhi salaam defarkatu gaal la woon daawuda alayhi salaam ay mbubbi koŋ la daan defar mbubbum koŋ buñ ko waxee mooy mbubbu weñ boo xam ne bu ko nit ki solee bu ko nit ki solee fet wala xeej wala jaasi du mën a dal ci kawam maanaam ñiy xeex ñoom ñoo koy sol mbubbi koŋ yooyu moom la daawud yonent yàlla daawud alayhi salaam doon defar moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa alanna lahu alhadid yàlla nee na maa ko may xéewal aku xarañe ci jëm ci wàllu weñ gu ñuul nooyalal ko ko ba mu yomb ci moom kon euh, loolu moo tax ñiy wax ñu ne moom ci fànn googu ci la doon liggéey moo tax yonente bi sallallahu wax ne daawud musta lekk lu dul lum liggéey ci loxoom musta lekk lu dul lum liggéey ci loxoom te kat daawuda moomu borom bi tabaraka wa taala nee na ko maa la def nga nekk ab xalifa ci kaw suuf si inna jaalnaaka xalifatan fil ard nga xam ne kon kooku su fekkee am na ku war ne tugg rek du def dara kon kooku la waroon a doon waaye teewul muy liggéey yor weñ gu ñuul di dugg ak génn di faggu alalam fexe ba lekkul lu dul ci loxoom la jógee te borom bi tabaraka wa taala waxul ne ko yaay xalifa dëkk sangam wala yaay xalifa mbooloo sangam waaye fil ardi yow yaay xalifa ñu ci kaw suuf ba noppi mu doon ab tëgg di liggéey Moussa alayhi salaam nekk na ab surga ca Madiana fa nit baax ka lu mat fukki at mu liggéeyal ko ngir mu faye ko mu tag may ko doomam soxna maanaam loolu moo doon condition bi ngir ma may la sama doom daal da ngay ñëw doon sama surga di liggéey ci tool yi di liggéey ci jur jurga di def loo xam ne juróom-ñetti at la soo ko mottalee ba mu doon fukkit nag baax na Moussa ne ginnaaw ñaar la wax juróom-ñett ak fukk bàyyil ma liggéeyal ko fukki at liggéeyal ko fukki at mu may ko doom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul benn yonent boo xam ne yàlla mas na ko yónni lu dul mas naa sàmm ak jur lu dul mas naa sàmm ak jur kon yooyu métier yooyu ñu yor yépp téewul sàmm jur moom jaaroon nañ ca ñu ne ko ah ak yow yonentub yàlla bi mu ne ak man ndax kat waa Màkka daanaa leen sàmm ak jur ñi di ma fay weer wu dee xaraariit maanaam ñi di ma fay weer wu dee te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commerce na ci alalu Khadija radiyallahu taala anha commerce bi ñu tudde mudaaraba nga xam ne kii lay yor fond nga yor sa kàttan ngay dem di commerce ngeen di seddoo bénéfice loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko kon ñi ñooy ñi yàlla bind ñu doon ñi gën ci nit ñi mu yonent yàlla yi kenn ku ci nekk yor sa métier ñoom ñëpp ñi ànd di jëf ñiy sàmm di sàmm ñiy tëgg di tëgg ñiy liggéey ci bant di liggéey ci bant ngir won la rek li fàggulu lew ak sàkku ko ni mu baaxe Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay daf koo romb saxaaba yi xool ko gis waa ji ni ci liggéey bi ak ni mu farloo ak cawarte gi mu àndal ci liggéey bi muy liggéey mu yéem leen lool ina waa ji de nii mu jàmbaaree su fekkoon ne fii sabilillahi la day kon lay gën ci moom maanaam jàpp ne liggéey bi muy liggéey liggéey àdduna la bokkut ak sabilullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen su fekkee ne dafa génn di liggéey liggéey bii ngeen gis fekk dafa bàyyi njaboot gu ndaw goo xam ne ñoo tax muy fàggoo alalam kon de fii sabilillahi la nekk su fekkee ne dafa génn di liggéey liggéeyam bi ngeen gis bàyyi fa ñaari waajur yu màggat yu dem ba télé mënatuñoo liggéey nga xam ne ñoo tax muy def lii muy def kon day fii la su fekkee ne dafa génn nitam di liggéey ngir fegal boppam di tàllal loxoom doomu aadama yi kon itam fi sabilillahi la nekk mu ne su fekkee dafa génn ngir di tiitaru nag ak di wane wu boppam ak bëgg su amee alal di cëppi cëppi nee na kon bu boobaa nag fi sabili seytaan la nekk maanaam ci yoonu seytaane la nekk yonente bi ko boo xam ne moo boole looli weesu lépp nee na ma akala ahadun taaman qattu xayran min an yakula min amali yadi nee na nit ki musuta lu gën mu lekk loo xam ne moo ko liggéey nit ki musta lekk lu gën la muy lekk fekk moo ko liggéey laaj nañ ko sallallahu alayhi wa yi nit ñi fàggu lan moo ci gën a lew mu ne leen la ca gën a lew mooy lim liggéey ci loxoom li nga xam ne dafa ñaq ba liggéey ko loola moo gën a lew lépp ak mépp njaay moo xam ne lu ñuy tere tabbiwu ca wa kullu bayin mabruur mépp njaay moo xam ne lu ñuy tere dugg ca loola ci li gën a lew ci la bokk moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan wax ne <clears throat> kenn ci yéen jóg fàpp ak buum dem ca àll ba taxan natt bu ko dajalee ba mu doon ay say mu gàddu ko ci gannaawam ñëw jaay ko di ca dund mu fegal ko nee na loola moo gën ci moom mu ñëw topp nit ñi di leen laaj moo xam jox nañ ko moo xam joxuñu ko waaye loolu moo gën ci moom Omar ibn Xataab radiallahu taala da daan wax ne léeg-léeg damay gis góor mu yéem ma lool ma naw ko am fu ma ko teg waaye ma laajte ndax am na lu muy liggéeye ñu ne ma moom de amul métier waaye nee na dafay daal di wàcc ci sama bët maanaam duutu tekki dara fa man day daal di suufe ànd ak ne dama ko nawoon moo tax waxkat ba wax waxkat ba nee na la xamlu saxri min qimami aljibaali nee na yéeg ci ay montagne yanu yanu aw ay doj di yéeg ak a wàcc nee na ahabu ilaya min minani rijaali loolu moo ma gënal nit jox ma dara ba noppi di wax ne bu dul woon ak man diw sàngam du am nangam naay liggéeya loo xam ne damay yéeg ci kaw montagne yanu faw doj wàccaat yéegaat wàccaat ba ba muy am lu ma dunde loolu moo ma gënal nit di ma jox loo xam ne bu ëllëgee mu ne bu dul woon ak man du ko am mu ne day yaqulu naasu fii fiihi aarun mu ne nit ñi am na ci ñoo xam bu buñ gisee yenn liggéey yu suufe yi dañuy defe ne loolu gàcce la wala liggéey bu suufe daa am mu ne déedéet fa qultu laaru fi dulli suaali nee na ma ne gàcce kay mu ngi ci mu ngi ci yalwaan ak laaj nit ñi waaye gàcce nekkut ci liggéey ñu dem nag ba jëmmi jamono nattukaay yi wëlbatiku xel yi jaxasoo nit ñi bunt boobu ñu jaxase ko carrément ba kenn xàmmeetul la jub ak la dëng am ñaari njuumte yoo xam ne day dal nit ñi ci lu jëm ci cadre liggéey bi nga xam ne ci lañ yor benn njuumte bi mooy ñu bari dañoo yaakaar ne borom daraja wala boroom xam-xam wala nit kuñ fonk wërta liggéey daa war a toog loolu njuumte la ñu bari jàpp ne boole sàkku xam-xam ak liggéey mënta nekk looloo beneen njuumte la saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay sàkkukati xam-xam lañ woon waaye xam-xam bañ doon sàkku ci boppam moo leen poussé ñu doon ay liggéeykat kon ñaari ñooñu amul contradiction abu mas'ud al badri radiyallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan toog ba bis mu ne sàkk leen sarax sàkk leen sarax su waxee loolu nee na li ëpp ci nun duñ yor dara nee na nunuy def nee na dañuy jóg dem ca marché ba di yanuwaan suñ gisee ku jënd dara ñu yanul ko ànd ak moom mu teg fa mu jox nu dara suñ ko defee balaa ngoon a jot kenn ku nekk dana mën a yor sa àndaari pepp dikk jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama sama wàll ci sa wax ngi nii kon ñooñu noonu lañ doon def mu ne bisub tey bii maa ngi xam koo xam ne lim dajale ci alal ëpp na téeméeri junni ci jamono bi kon muy xaalis bu bari mu ne te bis booba benn dërëm sax amu ko woon waaye soññee bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sarax ak sunu jub di dugg ca marché ba di dem ak a ñëw ca la tegee ba am alal joo xam ne alal ju lew yoon woowu nag naka jekk boroom xam-xam yi moom lañ mas a jaar seenub xam-xam ak seenub dëddu àdduna ak seenub ragal yàlla doxul woon seen diggante ak liggéey loo xam ne moom la ñuy yore seeni njaboot loolu moo tax lu bari ci boroom xam-xam yi boo leen di jàng da nga gis dàkkental wañ leen di dàkkentale mooy lañ doon liggéeyee dàkkental wañ leen di dàkkentale mooy seen métier nga gis koo xam ne ajurri lañ koy dàkkantale kooku mooy koo xam ne day defar ay birig di ko jaay al baqillaani ñu ngi koy askane ci pepp mi ñu tudde baqillaa bi garab gi ñu tudde yolaale lu bari ci ñi déglu duñ ko xam waaye xeetu sëb la boo xam ne moo gën a dijj sëb ñii ñu xam noonu la métier yi bindoo tawxiid yeeg aljassaas ak alxaasib alxaraas alxawaas alxabaas ba mu jeex loolu yépp ay dàkkantal la yoo xam ne lu baree bare borom xam-xam yi boo dee xool seen biographie dangay liir gis ñi dàkkantal ko ci dara fekk loola mooy métier moom doon liggéey te ñooñu boroomi xam-xam lañu yoo xam ne nit ñi dañuy màng di leen fekk si di sàkku ci ñoom xam-xam ba noppi ñu yor seen métier bu ñu xëyee di liggéey. ba ci sunu jamono ju mujj ji kenn ku nekk dégg na Cheikh Mouhamad Nasiruddin al Albani kenn ku nekk xam na ne la doon liggéey mooy horloge ci wàllu montar mosu ko bàyyi lim doon fonk fonk xam-xamu xadis ak di ci liggéey moom ci jëmmi boppam assaat yi da daan bëgg ku ko koy sax jamono yu nekk pour ñu xam ne Mouhamed Nasiruddin al Albani assaat yi gis naa ay téere bi yoo xam ne noonu la ko signé moom ci boppam maanaam defarkatu montar ba kon xam-xam ak yittewoo ca ak yëngu ca bul jàpp ne mukk yow taalu bépp xam-xam bul defe ne loolu daa war a dox sa digganteeg liggéey amu kay boo xëyee jàngil wutal ci semaine bi waxtoo xam da dem jàngi d'accord solo sa mbubb mu set solo sa mbaxana mu set yoroo sa téere di dem ak ñëw waaye bu liggéey jotee nag su nga dem liggéey nag bu waxtu lii del see nga jot nga tekkaat ci loola waaye bul jàpp ne mbubb mu set moom mbaxana mu set moom guddi ak bëccëg moom nga war a dekke fu ñu la séene séen ko déedéet am na waxtoo xam da ngay summi ko nag bu mag a la boo ñu yaakaar ne borom xam-xam wala kuy ku am tiraanga ci nit ñi wala yu mel noonu daa war a bàyyi liggéey ñaareelu njuumte ba moo di suñ nee liggéey ñi yaakaar ne rek mooy koo xam ne dafa war a jàng am ay diplôme dikk toog ci benn bureau rek di signé mel ni liggéey foofu rek la nekk loolu ab gis-gis bu suufe la ci wàllu liggéey boo xam ne eh, système yi ñuy jàngale ndaw ñi moo ko jur ndax dañ koy teel a jëmbat ci bopp gone gi boo demoon ci gone yi nekk ci école yi lu bari nga di leen laaj loo bëgg a doon da ngay dégg directeur u nangam laa bëgg a doon directeur u nangam directeur u nangam kon dañ koo teel a jëmbat ci bopp yi mu jur nag ay mbir yu doy waar eh, moo di yaakaar ne nit ki daal lu mën a jàng daal tiim ay këyit di signé moo war a nekk métier yaakaar ne jàng aw làkk ci boppam métier la defe ne daal ki jàng ba dégg français wala mu jàng ba dégg arabe wala mu dégg anglais defe ne kooku am na métier moo xam ne mën naa développer am réew te fekk du loola lii moo jur nit ki su jàngee ba yor ay diplôme su gisul bureau bu mu liggéeyee yaakaaram day daal di tas mooy waral itam ndaw ñi suñ gisee ñoo xam ne jàng nañ ba ñoom fañ yaakaaroon ne fa lañ jëm jàng ba gis ñu àggal ba noppi liggéeyuñ ci ay bureau ndaw ñooñu seen yaakaar day daal di tas te fekk ñoom départ guñ loolu moo tax nit ñi teel a rocc ku ci njàng mi di daw balaa àgg nga daw ndax da nga naan diw kët maa ngi ko doon gis jàng na ba léegi diplôme yépp la yor te mi ngi nii liggéeyu kon liggéey eh, say boo ma seeti nu ma def nga gis ñu jàng ba àggal wëlbatiku kenn ku nekk jëm ci leneen am ñoo xam ne dañoo yaakaar ne politique ci boppam liggéey la yim naa wut may ci def naa nanga mag yor samay diplôme mbir yi kii ma créer wala xaaral ma dugg ci béréb sàngam su ko defee su ma defee nii nangam nangam ànd ci danañ ma jox place ma liggéey yooyu ci yi delloo réew yi gannaaw ci la bokk am ñoo xam ne yaakaar day tas sax faf ñu yaakaar ne sport ci boppam dem bëri ji wala nga dem sàkk yeneen i pexe ngir am xaalis dafa ne loolu mooy développé am réew te loolu ci yi delloo réew gannaaw ci la bokk am ñoo xam ne sos ay société yi yoo xam ne boo dikkoon di ana société bi doo gis dara ay tur ngay gis rubama am naa mën naa am mu am benn ordinateur ak taabal publicité nag àdduna bépp publicité yoo xam ne lu nekk mu wax ne am na ko ay nit mën nañoo ñëw mu jaay leen ay terrain yoo xam ne amut bu ëllëgee day xëy xëy ordinateur am dem ku dikk doo ko fekk dara loolu mooy tappale yi nga xam ne boo ko toppee lépp ba mu daj moom la ñuy tuddee homme d'affaires muy musiba moo xam ne ci wàcc ci askan wi ci la bokk ay nit di ko métier woo fekk du métier léeg-léeg da gis ku ñëw ci waa daaray alxuraan yi doo xam da leen di mokke wala lu jublu wane ne njàngum alxuraan bi su ngeen ko dee def da cee war a boole di former xal yi di leen jàngal métier loolu dañ koy dégg lu bare bare bari léeg-léeg ay responsable ak kilifa sax ñoo koy wax loolu nag dëgg la dëgg la lu baax la dëgg la mënees na ko nangu waaye ñu yëg ne yemul ci ci daaray alxuraan yi yemul ci daaray alxuraan yi bul jàpp mukk ne école bee nga xam ne da nga ko ubbi muy jàngale français nga xam ne lañ fay déggee mooy làkku français képp boroom bu génnoon dàqal làkk tubaab ya itam jàppal ne amagul métier noonu yi borom daara ji war a ubbee béréb boo xam ne day tàggat gone yi ñu am métier kële jàngale tubaab wala muy jàngale araab noonu la war a ubbile gone yi place yoo xam ne moom itam ay jàngukaayu mécc la kon mbokki jullit yi su fekkee ne sunum réew bëgg nan mu jëm kanam te bañ a dellu gannaaw sunu askan ak sunu état faaw ñu ànd jàppalante ci amal nag système bu bees ci wàllu njàng njàng njàngin moo xam ne dafay sukkandiku ci recherche scientifique boo xam ne nit ñi danañ mën a jàng ba mën a amal loo xam ne ci la am réew di taxaw ngir jëm kanam ubbi ay centre yoo xam ne formation professionnelle la nit ñi jàngal leen ay métiers yoo xam ne dañ koy xarañe te duñ ko fortaatu loolu mooy loo xam ne doonul waxi caaxaan làkk yi doy na sëkk lu ne nit ñaa ngi koy làkk ci réew mi waaye nag métiers yi lañ soxlaa gis yi nga xam ne seen borom xarañe nañ ko ñi nga xam ne jàng nañ ba mën a trouver dara ñi mën a jëriñu ci solaire bi ak li fay wàcc ci xeetu énergie bu bari mën a jëriñu ci suuf ak li ci biir mën a jëriñu ci géej gi mën a jëriñu ci tool yi lu mel noonu lañ soxla ay nit ñu gëstu foofa ba xóot fa génneel ndaw ñi njariñ ñu ñaq yëngatu seenum réew yéeg bokk ci réew yi nga xam ne ñooy raw ci réew yi yàlla na sunu borom tabaraka wa taala def loolu allahuma yassir lana al umur wa abid anna shurur wansurna wansur bina ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين